بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى عليهم وعلى إمامهم أفضلهم سيدي وحبيبي أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه المهتدين bokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu incha allah ci ndimbalu borom bi ak dogalam ñëwaat nañ ci bind bi ñu tàmm am talaata jot ci wi di ko amee ci téere nit yàlla ku mag kii di Ibn Ataa'illah bi ñu tuddee al-Hikam al-Ataa'iyya tey itam incha allah di jàng xikma bu solo te mooy al-hikmatu alxaadiyatu ashar wa situun wala alxaadiyatu wa situun juróom benn juróom benn fukkeelu xikma ak benn mu ne man lam yuqbil man lam yuqbil ala allahi bi mulaatafat al ixsaani siiqa ilayhi bi salaasil al imtixaan yàlla ndax taraangaam yi da nga wuy ji yàlla ndax kàcciram ci képp ku wuy jiwul yàlla ndax taraangaam yi danga wuy ji yàlla ndax kàcciram ci doomu aadama yi yiy seen borom ñaari groupe lañ groupe bu njëkk bi da leen di teral rekk ñu wuñu ñu ñëw groupe bu ñaareel bi nag ñoom xamuñu teraanga dañ leen di làpp ji ñëw loolu la mu ne mimma la shakka fii anna allah hakim ñun ñëpp xam ne ne yàlla hakim la ku xereñ la wal hakimu ismun min asmaihi alxusna hakim ci tur yàlla yi la bokk wal hakimu man utiya min daqaiq alulumi ma مكنه من أن يدع الأمور كلها في نصابها حكيم mooy koo xam ne yàlla may na ko xam-xam boo xam ne dafa ànd ak kariñ bu ko may lu nekk mu teg ko ci bérébam xam-xam mooy information lay doon xikma nag moom mooy nga xam li ngay jëfandikoo li nga xam ba mu jëriñ la loolu mooy xikma ni ngay jëfandikoo li nga xam ba mu jariñ li ñi nga dëkkal donc xam-xam jafe na waaye moo gën a yomb xikma xikma moom duñu ko fàgg yàlla koy maye ndax ñu bëri bu njàngee ba xam ñi am xikma mooy ñi yàlla may ñu xam nan lañuy jëfandikoo li ñu xam ba jëriñu jëriñee moo tax moo ëpp solo moo tax yàlla ne xéewal walla goo xam ne ku ko neex la koy jox yu'ti alxikmata man yashaa wa man yu'ti alxikmata faqad utiya xayran kathiran yàlla nee na mooy may xikma ku ko neex waaye li am solo mooy kum jox xikma jox na la lu rëy kum jox xikma jox na lu am njëriñ daal li ci doy waar rek mooy fi ko tuddee ci sortu bàqara aaye ko jiitu yëpp yàllaa ngi wax ci jëriñ doomu aadama yi mooy am alal nangu cee dépensé am alal nangu ko nangu koo dépensé ci yoonu yàlla ci sa mooy ayaatu infaq yi nekk sortu baqara ba mu jeex da wax ni xikma moom ñëpp nuñ ko am moo koy jox ku ko neex ñu déggee ci ne ñu déggee ci ne kon euh, euh, alal mën nga ko am di ko dépensé te du jëriñe na mu waroon a jëriñee bët bu set nga gis ku liggéey alalam ba ba ba mu jëriñ mu nang koo jëriñ dépenser mais ñàkk xam ñàkk am xikma mooy tax da koy joxe fu mu fu mu ameewul njëriñ wala fu mu ëppewul njëriñ ci ci sax ñi nangoo génn asak bët bu set nga gis jaamu yàlla boo xam ne yàlla baaxe na ko mu gëm yàlla gëm ne dafa war a ñàkk door a jëriñu mu wut alalam wutin wu lew alal jooju mu dëggal yàlla nangoo génn asaka waaye bu dara des joxe asaka bi du am xikma ba jox ko ñu ko jëriñoo day day woote ñu rang ko ba ci Sénégal yi nangoo génn asaka gi ñëwee dañuy rangloo nit ñi ñu rang rang bu gudd loolu doy na waar jël sa boroomu gor sa nawle gor rangloo ko di ko rangloo ci loo xam ne moomuloo ko waaw mu rang ku fa romb séen ko xam ne fii coo ba ñàkk am lu moo fi indi bu dab bu rangee ba ak si jaw nga jox ko 1000 francs loolu xam nga ki ko def amul xikma amul xikma bu amul xikma da ciy tànn ñu néew jox leen ci lu bëri ñooña dem liggéey ku bu déwee na ñu bokk ci ñuy joxe asaka du jël ci asaka loolu mooy xikma loolu nag dafa laaj ku ko organisé moo tax asaka ñu ko bàyyi nit kenn du ko jëriñoo moo tax alquran yàlla ne yonent bi demal jëliko la ko xuz min amr jëliko kuñ ko bàyyeel doo ko génne wala soo ko génnee doo ko joxe joxe bu baax parce que alal moo mel dafa jege dafa jege bakkat moo tax kuñ ko bàyyeel doo ko génne ñi ëpp ci julli ñi duñ génne asaka ñi ëpp ci jullit ñi maye ci seen alal lu ëpp li ñu war a génn asaka moo leen génnal génne asaka ji su ko defee buñ ko génnee par exemple ñi ci ëpp ci ñoom bi ko joxee ni ko war a joxe moo tax yàlla na yant bi demal jëli ko demal fokkar ci ko xóosu min ambal demal nangu ko ci ñoom ndax nga mën koo jaarale yoon moo tax asaka lu ama am solo la xikma nag kon mooy xam ni ngay jëfandikoo li nga xam ba mu jëriñ la mu ne fa min fa min mazahiril xikmatillahi azza wa jalla يتحبب إلى عباده في أول تعامله معهم بالنعم يمتعهم بها ويزيدهم منها ويمدهم بأجل مظاهر التكريم والإحسان ويسخر لمصالحهم حركة الأفلاك والكثير من النباتات ويذلل لرغائبهم وحاجات كثيرة من الحيوانات mu ne bokk na ci xikma borom bi tabaraka wa taala diggante ak jaam bi mu bëggee ñu déggal ko jumtukaay bi mu ñëkkee jëfandikoo mooy taraaka daf ne sama gaa yi am na ñoo xam ne ku leen teral am leen te loolu yàlla da ko mooñaale ak nit nit ku normal ku ko teral am ko moo tax Sidi Hadj Malick wax yonent bi salaa salaam li taxoon mu réussir liggéeyam mooy bi xëy lii wa xëy wa bi xayrihi wa bi xayrihi jalabal wara nee na li ko may bu réussir mooy dafa xàmme woon nit am na ñoo xam ne ku leen teral am leen waaye am na ñoo xam ne leen toroxalul doo leen am moo tax ñii yonent bi daf leen teral ñii daf leen toroxal loolu loolu loolu loi historique la yàlla moom moo ñe doomu aadama yi noonu ñi ëpp ci nit ñi nag ku leen teral am leen mu ne yàlla kon dafa lay teral di dolli teraanga ji te nga mujj gis ne yàllaa gën ci yow ku moom nga daal di koy bëgg soo ko bëggee déggal ko doomu aadama ku mu bëgg déggal moo tax yoon wi yoon wi normal bi yoonu normal bi mooy yàlla dafay teral nit ngir am ko loolu moo tax mu def af mu def adduna bi daf jant beeg weer weer suuf si lépp ay një nekk ay njëriñ ci doomu mu def gàncax gi lépp nekk njëriñ ci ay doomu ci doomu mu def jur gi ci gàttal lépp lu dul nit fi nit nekk rek bëgg nit tegg tedd moo tax yàlla bind ko lépp lu dul nit fi nit nekk fu nit nekk lu fa dul nit rek yàlla bëgg nit tedd tax mu bind ko mu def ko kon loolu fa la yem وهذه المعاملة التي يقبل الله بها على عباده ليست خاصة بالمؤمنين أو ko jullit ñi doom nit ñëpp la ko teral nit ñëpp la yàlla teral parce que yàlla bind ñëpp te ñëpp li mu bëgg ci ñoom mooy ñu ñu wuy si ko ndax si wuy si ko la seen teraanga nag moo tax teraanga ji sabab ñu wuy si ko ñëpp la ko yemale moo tax fii yàlla rahmaan la fa rahman mooy ki yemale chance yi fii ci àdduna ku bëgg baax baax ku bëgg a tedd ba tedd ku bëgg a xam-xam waaw ah, fii yàlla rahman la fi tudd alaxira la tudd rahim rahim mooy ki ki récompensé ki delloo njukkal ñi góorgóorlu woon ba jëriñoo yërmande yàlla ci kaw suuf waaw ah, ñi góorgóorlu woon ba jëriñoo teraanga yàlla yi ci kaw suuf dugal ko foo mën a ñooñu la yàllay delloo njukkal yow mal xam moo tax foofu rahim la fa tudd moo tax taranga bi matawul foofu matalewul foofu fii moom daa matale mu wax ko sóorut loolu mooy baatu rahman rahim bi nekk sóorut fatiha waaye soo demee sóorut isra sóorut isra aaya ñaar fukk daf na kullan numiddu min atai rabbik wa ma kaana ataa rabbika mahmuran mu ne teraanga ji ma fi indi ñëpp laa ko fi indil fii fii ku fi bëgg a tedd tedd fi su jullit bëggee tedd réunir condition teraanga condition yi tax mu mérite mérito teraanga yàlla tedd su fi yéefar day yi tax mu mérito teraanga yàlla fii mu tedd moo tax fii ku fi ku fi góorgóorlu tedd fi su ku gëm yàlla mën nga fee tedd ku wedd yàlla mën nga fee tedd parce que fii teraanga yàlla ñëpp la ko boole Eh, keroog émission bi bi ma def fan yi passé am na sama invité bi wax dafa wax boo xam ne wax bu rëy rëy la te teewlootuma kan moo ko waxoon ci nitu yàlla yi dafa nekkoon góor gu góor gu bu am payre am daraja nitu yàlla bu am payre am daraja ba pare eh, bari bari payre suy génn ñépp ko yëg mbedd bi yëpp nit ñi fay taxaw di ko xaar euh, bi mu génnee di dox ak ak bu mag boobu benn benn benn benn benn benn citoyen benn benn boo xam ne du du du jullit néew doole lool néew doole lool waa ji ne ko yow sa yonent bi dafa wax ni dafa wax ni jullit safa àdduna mooy safaraam àllaaxira mooy ajjanam mu ne ñun yéefar yi seen ci moo ne ñun yéefar yi suñu ajjana mooy àdduna suñ safara mooy àllaaxira yaa ngi nii sa àdduna neex lool sama àdduna naqari lool <laughs> eh, loolu c'est loolu mën naa gàgg loo ku nekk waaw te eh, da koo kar nag jàpp ci fulam mu a ko yow sa yonent bi dama wax ni sa yonent bi moo wax ni yéen jullit fii mooy seen safara ajjana alaaxira mooy seen ajjana ñun yéefar yi fii mooy suñu ajjana alaaxira mooy suñu safara yaa ngi nii nekk ci ajjana adduna ji man ma nekk ci safara ajjana ji nu mën a mu ne ko déggul li mu wax suñu bi li mu bëgg wax mooy yi neex neex neex neex su ko comparé ak ajjana ji koy xaar mu naqari ci moom mu nekk safara ci moom lu yéefaru lu lu àdduna yéefar neex neex neex neex su ko comparé la koy xaar ci mbugal mu naqari ci moom bu ko <laughs> ah, xam nga loolu lu jara firi la ah. Ah. neex neex àddunay jullit mu neex neex neex su ko comparé ak ja koy xaar mu naqari ci moom mu nekk mu mel ni safara ci moom waaye yéefar bi lu addunaam naqari naqari naqari ci moom lu mu naqari naqari ci moom su ko comparé ak mbugal mi koy xaar safara mu neex ci moom waaw loolu loolu loolu la yonti wax loolu la yonti loolu la ko firee prix boobu man njëriñu naa ci lool parce que wax yu mel yonti bi léeg-léeg day wax yoo xam ne sama classe bi duñ ko mën a comprendre ci gàttal daal fii moom fii moom taraanga ñëpp la ko fi yàlla dencal waaw moo tax su góor boo gisee àdduna bi yéefar yi ñoo ko ñoo ci ci dëkk yu bëri ay yéefar fa dominé parce que yéefar yi ñoo réunir conditions yi tax ñu yelloo teranga àdduna ci àdduna bi su ko ji su ko jullit yi defoon itam nag yéen parce que am na jamono yoo xam ne jullit yi ñoo gën a neex réew ci àdduna bi am na jamono yoo xam ne réew jullit yi moo dàq ci àdduna bi réewu àdduna parce que booba jullit yi dañoo réunir condition teranga àdduna bañ bàyyeekoo nag bañ demee ba naagu bàyyeeko ah léegi ñoo gën a torox dañoo torox ba torox ci seen biir réew yi waaw ah, jullit yi dañoo torox ba torox ci seen biir réew yi waaw ah, te loolu dinañ ko teg mooy ñàkk a réunir condition yàlla wax ci suuratu Anaam aaya téeméer ak juróom benn fukk ak juróom wa huwa alladi jaalakum xalaa'ifa al ard wa rafaa ba'dakum fawqa ba'd darajatin li yabluwakum fii ma atakum aaye bi li tax docteur Ramadan bu ci indi ko dafa bëgg wax ne bul déggee ci li ma wax ne teraanga yi yàlla def ci àdduna bi ñépp ci yem am na dénominateur commun am na teraanga yoo xam ne ñépp ko am mais rawan ëppal ëppalante dañ gannaaw loo ci ay teraanga waaw xam yéefar moo xam jullit na daal am na dénominateur commun am na loo xam ne mënut a ñàkk yàlla ñépp la ko defal li mun te ñàkk ngir tedd ci àdduna bi yàlla ñëpp la ko defal waaye yokk loolu nag ëppal ca ëppale ca nag loolu nit ñi yamuñ ci ay daraja loolu la loolu la wax ci sóor aay bi nag sóor anaam maa leen wàcce ci kaw suuf leen ngeen samay xalifa waaye dama yëkkati ñenn ñi ci kaw ci ay daraja dara lay teraanga loolu nag li tax ma def ko li yabluwakum fi ma atam damaa bëgg xam loolu lu mu leen di jural ak nu ngeen ciy defe nu ngeen ciy doxale yokkal gi ma yokkal ñenn ñi ci yenn trang yi dama ko dama koy dama koo def pour seet ba xam mérito nañ trangam que am na ci ñoo xam ne ci tranga yooyu lañ toroxe mu ne est-ce que suuf si yàlla bind du ñun ñëpp ñu bokk ñun ñëpp bokk suuf si ñun ñëpp ñoo bokk suuf si kenn ku nekk suuf si mooy sa lal mu ne xanaa du yéen ñëpp la yàlla boole ndox mi ñun la yàlla boole ndox mi ñun ñëpp ay naan ndox man nañoo naan nag ndox yu wuti am na ñoo xam ndox mu set la ñuy naan am na ñoo xam ndox mu nëx la ñuy naan waaye ndox moom ñun ñëpp la ko yàlla it ku fi ku fi noppee naan ndox rek jóge fi waaw yàlla nee na jaal naa min al maai kulla cheyin xay feeg yaa ngi dund di naan ndox kër yi ñoo mën a wuti ak kër yi waaye ñun ñëpp kenn ku ne am na kër gu dëkk moo xam yaa ko moom wala moom loo ko moo xam boo ko moomee kër gu doyati la ñun ñëppay nelaw ku nelawatul jóge fi ñun ñooy pay yow di doxi loolu jur teraanga yëpp ñoo ko loolu ñun ñëpp ko bokk mu des nag léegi euh, kenn ku ne teraanga ji nga am ban degré nga ci am mu ne bu fi nekk nag naan ma man sama kër sama kër saalu diw baa boobu nu man sama yoon nekku ci lool li am solo mooy am nga kër comme ñëpp rek kër gi bu ku ku ku dox ba sonn dugg ci kër boo doxee ba sonn dugg ci kër bu fi nekk naan këru sama kër ga saalu diw baa boobu ndax su ma nee teraanga yàlla yépp ci yem jubluma ci ne ñépp ci yem luñ ci am jubluma ci loolu parce que yàlla la deex mu ëppalante la mu may ñu ñu ëppalante ci ndax natt loolu su ko yàlla defee dafa séntu ci ñun ñu delloo ko njukkal dafa séntu ci ñun ñu gore bu ñu yàlla teralee teraanga jooju nga xam ne bi ci gën néew mooy lekk naan tëdd solu waaw nga xam ne ñun ñëpp koy def moo ci gën a néew dafa séntu woon ci ñun ñu delloo ko njukkal ndax jàpp na ne gor ku ko teral mu delloo la njukkal la surtu rahman aaya juróom-benn fukk hal jazaawul ihsaani illa al ihsaan ndax gor dana faye teraanga lu dul teraanga ndax gor dana faye njekk njekkati yàlla mooy laaj déedéet gor du faye teraanga ñàkk teraanga du faye njekk njekkati mu ne wal insaanu alladi arafa rabbahu doona an yuaani min shududin fi xaalati annafsiya aw kibriya نعمت وعن رؤية الحقيقة لا بد أن تقوده النعم إلى شكر المنعم تلك هي الطبيعة التي فطر عليها الإنسان وصدق من قال جبلت النفوس عن حب من أحسن إليها mu ne nit ku xam yàlla te feebaru nit ku xam yàlla te feebaru rëyut rëy ku koy teree xam dëgg nit ku mel noonu ku ko teral mu gërëm la ku ko teral mun la jërëjëf kon doomu aadama bu fekkee xelam jaxasowul war naa gërëm jàll ci xéwal yi mu def ndax loolu mooy li normal leneen li exception la war a doon ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ci hadis jubilati nufuusu ala bi man ahsana ilayha yàlla dafa mooñaale nit ñi ku leen di teral loolu règle la loolu loi historique la am na exception nag waaye charge la charge am na nit ñoo xam ne boo leen teralee noo leen gën a teralee ñu gën laa bañ mais ñooñu ay exception la mais li li ñi ëpp ci nit ñu normal yi ku leen teral ñu bëgg la waaw bu fekkee da ngaa rëy nag ba rëy gi jural la kiñaan mooy jur nga bañ ku lay teral léeg-léeg nit am problème boobu ci biir mbokkam boo dee dund ci say mbokk te yéene wuñ la li nga am ñaare noo leen gën a terelee ñu lay gën a iñaane di gën a di la gën a bañ te loolu exception la loolu du règle ah, waaye day am na loolu moom la yàlla moo ñaare doomaat yoon ci wax ni ahibullaha lima yaxduukum min ni'am moo tax mu ne bëgg leen yàlla ndax daf leen a teral bëgg leen yàlla ndax daf leen teral te doomu aadama bu normal ku ko teral mu bëgg la man nag da ngeen may bëgg ndax li ma yàlla bëgg ndax soo bëggee nit da bëgg ku mu bëgg waaw ah, waaw yonent bi salaa waxul li ma leen defal moom xam na defaluñ dara en kay defal nañ dara kay ah, ndax moo tax ñu xam ki ñu defal dara kan ah. defal nañu dara <laughs> ndax moo tax ñu xam ki ñu defal dara moo tax mu ne bëgg leen yàlla ndax lim leen teral ndax nit ku normal suñ ko teralee ku ko teral mu bëgg la man nag da ngeen may bëgg rek ndax li ma yàlla bëgg sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne la in shakartum la azidannakum sa intérêt ki rek ndax noo ma gën a sant ma lay ma ma lay dolli waaw ah. sukkurulaa yi nag dañ koy firi sant yàlla du yàlla jërëjëf am kay yàlla jërëjëf baax na waaye sant yàlla dëgg-dëgg mooy xéewal yi mu la def nga defe ko fi ko neex nga nga def ko fi mu bëgg loolu mooy mooy sant yàlla loolu mooy ki normal ki normalul nag mooy ki nga xam ne teraanga mënu ko yëngal moom lakk rek lakk moo tax mu ne amma man shadda an hada nahj fa talaqa niam wa arada an almunim wa nxatta gayra mubalin fi tariqi shuruudi wal isyan la tuslihuhu galta ولا تنبهه تذكرة فهو لا يخلو أن يكون منتفعا إلى حاله تلك بأحد عاملين أحدهما عامل الطغيان والاستكبار ثانيهما عامل الاستحذاء امام سلطان الشهوه والاهواء لا سيما عندما تتفتح السبل اليها ويتيسر اسبابها بسبب كثره النعم وتوافر العافيه وزياده المال ونحو ذلك mu ne ki nga xam ne nag mooy exception ci règle boobu te mooy ki nga xam ne teraanga bu ko tax a gërëm ki ko teral waaw moom dafa sittir kooku moom waare mënul ci moom dara fàttali mënul ci moom dara kooku nag kenn la ci ñaar ñi bu njëkk bi mooy kuréy kuréy moom mënu ci moom dara kuréy moom du gërëm yàlla du gërëm kenn kenn du ko teral nit ñoo xam ne loo leen defal lu mu rëy rëy duñ la gërëm ndax rëy nañoo wax nit jërëjëf rëy nañoo wax nit jërëjëf nga xam ne ñu bari ci ñoom sax dañuy sonn sonn ci àdduna bi ndax rëy rek ndax rëy nañoo wax nit seen soxla waaw ku mel noonu boo boo ko terelee boo ko dimbalee du ko wax du ko wax du ko waxtaanee mukk kenn ki la ki ci des koo xam ne mooy koo xam ne daf feeb nga xam ne bànneex da koy tax a dof rawatina bu teraangay ji bëree ci loxo am na fii ñoo xam ne bi bi bi alternance bu njëkk bi amee xaalis bi bëri circulé ñu am ci dañoo dof dañoo mujj nekk ay dof waaw lu ne yëfu dof yu nekk la def yëfu dof rek la ñuy def ndax xamuñu xaalis xamuñu xaalis waaw ñu xëy rek mu ne cëpp seen kanam ñu dof ñu mel noonu nag seen dof li koy dindi mooy nangu alal ji ba pare toroxal leen rek moo tax yàlla ñi mooy ñi bëgg parce que ñi rëy moom sa fii ñaari groupe la dañ bay xel ñi nanguwula la gërëm yàlla ci teraangaam yi ñaar rek kii moom daa rëy moom dafa rëy yàlla na yàlla musal ci rëy kenn ki dafa faible dafa dafa ñàkk solo ba lu teraanga am tuuti tuuti yóbbu fi su yóbboo fi tam mu daf dootu def jëfu nit am na fi koo xam ne doomam dong la doon wut wutal visa ñu ne ko na wane ne na jox joxe na na def na wane xaalis bu am ci banque boo xam ne danañ xale bi du torox fa mu jëm tubaab bi dañ koy def soo bëggee wut visa comme dañuy bañ nga dem lang fa dañ lay wax ne am na lu ñu lay laaj benn somme bu ñu lay laaj boo xam ne da koy da koy dañuy dem ci banque bi ñu defal la relevé wax ne am nga fi somme nangam pour ëllëg soo naree sonn foofu ñu bañ ko ko laajee un milliard la fi ñu gis ne moom am na un milliard xam nga c'était pas nécessaire daa dox rek xaalis day dox loolu nit ah c'était pas nécessaire mënoon na def un million wala deux millions wala trois mais un milliard la fi journée yi wax ko mu wetti ko <laughs> ah. kon ñaar ñooñu. ki réy ki danañ ci ñëw moom mooy mujj mais ki nga xam ne moom euh, euh, ala teraanga day yóbbu fitam kooku moom solution bi bi bi bi ko yàlla defal mooy nangu teraanga ji toroxal yàlla ne innal insaana la yatgha an ra'aahu staghna yàlla ne am na ci nit yi ñoo xam ne teraanga da leen di dofloo yàlla neen am na ci nit yi ñoo xam ne teraanga da leen di dofloo innal insaana la yatgha an ra'aahu staghna ñooñu nag euh, ñoom yàlla dafay nangu traga ci ba pare teg leen ay natt métte métte euh, danaa ci dellu si kooku mais damay ñëw ku dëgër ku kuréy ki kuréy ki moom yàlla du nangu teraanga bi da koy dolli da koy dolli ngir mu gën a pew comme léegi moom foog dañ ko war a mbugal mu gën a am layu mbugal ku yomal xem loolu la yàlla wax ne fa darni wa man yukadibu bi hada bi hada diin bi hada alxadis fa darni wa man yukadibu bi hada alxadis sanastadrijuhum min xaytu laa yaalamuun wa umli lahum waaye inna kaydi matin nee na waa ji fi nekk di dof doflu di rëy rëylu xamul ne li mu yor yëpp maa ko jox bàyyi koog man danaa ko def istidraaj lu lu mu dugg ma ma jo ma tool ma ci alal ma jokk danaa ko def istidraaj muy gën di bëri rek alalam di gën a bëri ba pare ma bàyyi ko fi nag mu gudd fan ñu defee ne dama koo fàtte fekk duma yu métti yu ma ko waajal doo nga tax ma bàyyi ko fi koo gën a mën a duma rek loolu mi ngi sóoratu xalam diggante aaya 44 ba 45 mu wax ci suurat al talaata zarhum zarhum yaakuluun wa yatamattaun wa yulhimul amal fa sawfa yaalamun nee na bàyyi leen yéefar yi nga xam ne ñu ngi fi nekk gëmuñ yàlla gëmuñ yonent yàlla maam bëgguñu lislaam di ko xeex bàyyi leen rek maa ngi leen di xaar danañ bis dana ñëw ñu xam ne fàttewu ma leen woon te rëcc ñu waxaat sourate Ali Imran laa yaxurrannaka taqallubu alladina kafaru fi lbilad mataaun qalil mataaun qalil summa ma'waahum jahannam wa bi'sal mihaad yéefar yi nekk ci dëkk bi di ko àdduna bi di ko lëmbe yor alal ji di ko foye nit ñi dee xiif ñuy xeex diine ji di xeex gor yàlla da wax ne bu mu la bu bu mu tax nga defe ne dama leen a fàtte walla nga defe ne dama leen a tànn ci jullit ñi déedéet diir bu ndaw laa leen di may rek su ko defee fa may mujj ak ñoom mooy dugal leen safara yàlla jàll bu sal ba tey sooratu anaam fa lamma nasoo ma dukkiru bi fataana alayhim abwaaba kulli shay ba ma leen nattoo ba xam ne adduna dong lañ bëgg seen yoon nekku ci àllaaxira laa laa ne rek naa leen far bàyyi rek a seen adduna luñ bëgg ñu def ko ci que yàggu ma fata ali abwaabu kulli shay lu ñu dugg mu réussir projet bu ñu am mu réussir xatta ida fari bañ demee ba jàpp ne réussir nañ seen dund àdduna bi maa utu axadnaahum baxtatan fa ida hum mublisun ma jékki-jékki rek ne leen cop tak rey leen duñ taqati dara duñ amati dara yàlla ñu jàll bu sax boo yàlla wax ba tey sourate Araf sa usrifu an ayati alladina yatakabbaruna fi l ard yàlla nee na man du ma jàppale yu rëy yi du ma leen jàppale ci ci yee leen bi gayri xaq wa in yaraw kulla ayatin la yuminu biha loo leen mën a wax mandarga ma leen jox du ñu gëm yàlla wa in yaraw sabila rushd la yattaxidu sabilan suñu gisee yoon wi jaar tax itam duñ fa nangoo jaar wa in yaraw sabila al xayyi yattaxidu sabilan loo leen woo ci mooy yàlla goo leen woo ñu fekk la ca mooy yàlla goo leen woo ñu fekk la ca waaye boo leen wooyee ci gëm yàlla duñ la wuyu kon bokk jullit yi ñu gis ne doomu yi ñaari groupe lañu groupe bu rëy bi faalewul yàlla ñoom moom teraanga ju ñu am ci àddina bi yàlla xeeb ko dool leen ko ñi bëgg yàlla walla ñi mën a bëgg yàlla ñi rëyut ñi rëyut ñaari groupe lañ groupe bu njëkk bi ku ku leen teral am leen ñoom yàlla de leen di tere rek ñu defal ko li mu bëgg la groupe ñaareel bi ci ñaareelu groupe bi ñoom foog yàlla lapp leen di door jaar yoon moo tax léeg la nga gis jullit boo xam ne day day day day mbir yi lool jékki-jékki rek affaire ba mel ni xiin wu saay alal da jeex ay feebar dal mu sonn lool waaye soo ko jegee da ngay gis jëf jooju ni mu ko delloosee xamalaat ko boppam xamal génne ko ci gént yi mu doon gént ak ak caaxaan yi mu nekkoon moo tax yàlla wax ne wa nabluukum wa nabluukum bi charri wal xayr fitnatan wa ilayna turjaun yàlla nee na ni ma leen di xëccee ñaari jumtukaay la neex ak naqar ñenn ñi damay neexal ñu ñëw ñenn ñi dama leen di teg lu naqari ñu ñëw waaye ñoom ñëpp neexaay bi ak naqari bi yëpp ay ay nattu la ay xéwal léeg-léeg nattu bu metti nekk xéwal ndax xéwal du dara lu dul lu lay delloo ci yàlla lépp lu la delloo ci yàlla rek xéwal xéwal gi nag mën naa naqari mën naa naqari waaye xéwal lay delloo ah muy nettali ne ci misaal moom misaalum ñi ñi ay nattu delloosi ñi ay nattu delloosi mu ne. at yib jàll kuntu fi ziyaarati aalimin jalilin urifa bisalaahi wa taqwa dafa am benn bis docteur Ramadan Bouti mooy wax ma seeti benn nit yàlla ku baax ku ñëpp xam baaxam ma dem di ko ziyaara ci borom xam-xamu Damashi la bokkoon julli ko refe la ma dem ziyaara ñu ko ngir wut tiyaab nee bi ma agsee rek ba toog ma seen benn waay boo xam ne mi ngi ñëw ak coono ndax ñaar ñaara ko gàddu kii nekk ndey joram kii nekk càmmoñam muy muy wata nga xam ne daanaka jéego yi mën a ko yëkkati tànk yi dir ko bi mu agsee ba toog daldi di biñ ko bàyyee rek mu daal di mun a ruppi suuf daal di foon loxoy sëriñ bi bëgg a foon tànk yi tànk sëñ bi bañ nee na ma ne ki ma dendal la kii kan la mu ne ma fulaanu كان ضابطا كبيرا ذا ظلمة متميزة ومكانة عالية تطوف النعم في خدمته وتجوب المتع بين يديه وكان في ذهول تام عن الدين وعن الدنيا وعن الديان وحقوقه وحقوقه وحكمه فأدركه من الله شلل جزئي mu ne ko kii benn général la bu nekkoon ci armée bi am daraja lool armée bi fonk ko lool mu bëri teraanga bëri alal boole ko ñàkk teggin goo xam ne faalewul yàlla faqul nitu diine ku masa da yàlla nitu diine toroxal ko boo ko masaan wax diine du la faale yàlla def benn bis rek mu xëy am AVC AVC bi moo ko def nii ci AVC bi la door a comprendre ne fi mu jaaroon du foofu mu daal di tuub nag tuub boobu nag ci dabaatal la nekk nii mu ne fi mu ne fu mu dégg ku baax def fu mu dégg lu baax def ko mu ne toog kooku kon AVCM bi baax na trop waaw ah, waaw kon ñun ñi nga xam ne nag ñun wuy si nañ avant AVC bi yàlla yàlla musal ci AVC yi waaw ah, waaye ki ki nga xam ne AVC yi dangay tax mu wuy si kooku AVC baax na ci moom waaw ah, mu ne daal dina waaj daal tuub ma ne ah kii day moom moo bu docteur Ramadan bu mu ne est-ce que yàlla li wax ne danaa leen nattoo yu neex yeeg naqari wallaay wax ne kii day lu naqaree ko dellusi lu naqaree ko moo ko moo yee ndax daa xawoon dafa doon nelaw wala dafa dofoon kon euh, mbokki jullit yi ngeen gis ne laqad raaytu annahu jalla jalaalu fi kila alxaalatayni allatayni yataaradu lahuma al insaan innama yuridu bi abdi xayran mu ne kon nga gis ne doomu aadama yi ñaari niveau yi ñu nekk yépp yàlla jàmm la leen moo tax ñu nekk ki nekk ci ay tranga jël tranga jooju yépp def ko ci yoonu yàlla kooku xéewal jàmm tax yàlla yokk tranga ji ki ñàkk tranga ji waaye yàlla teg ko ay nattu ay feebar ay coono àdduna waaye yooyu yépp delluusi ko ci yàlla mu tuub kooku itam natt boobu lu baax ci moom la même bu fekkee natt bu njëkk bi moo dàq yàlla na yàlla nattoo ci bu njëkk bi waaw euh, te mooy man suñ bopp ci àdduna te du yóbbu suñ fit waaw bu bu naree am nag bu naree yóbbu suñ fit nag nañu teg li ñu teg ñëpp parce que ñun li ci am solo mooy fa fa fa woy woy daanu waaw ah, fi woy daanu mooy xusnul xaatima yàlla nañ ko def donc mu ne kon ñett yi kon nit ñi ñett lañ ñi bëgg yàlla jëm ci yàlla ñooñu yàlla li mu njëkk jëflante yoon mooy teral leen su teraanga mënul ci ñoom dara mu toroxal leen beneen groupe bi nag mooy bu rëy bi bu rëy bi moom yàlla day dool seen teraanga ci ndax ñu gën a mën a bari bakkaar ndax ñu buggal leen yàlla nga wax suurat Ibrahima wala taxsabanna allaha gaafilan amma yaamalu zalimun innama yuaxiruhum li yawmin tashxasu fihi doole yi nekk di tooñ julli ñi di leen teg ay fitna kenn mënulu leen dara soo leen sóoroo ñu boole laak seeni surga ñu lapp la soo leen yóbboo tribunal ñu koromp waa tribunal ñu àtte am cëw dëkk yàlla bul bu leen def ne dama leen di bàyyi noonu de yëg naa ko te daa danaa leen fajal seen mer bu yomal xiyaamee ba ñëpp jaaxle kenn ku nekk xulli bëtam di xëy bu boobaa keroog danaa régler problème mu wax ci sooratu Ibrahima wala taxsabanna allaha muxlifa waadi rusula yàlla ne du ma wax di du ma wax waxeet yàlla ne moom du wax waxeet inna allaha azizun du intiqaam yàlla ku mën a respecté kàddoom la te itam nangu naa fayantoo kañ yow ma tubaddalul ardu xayral ab bu yow mal xiyaamee ba suuf si nekkatul suuf asamaan si nekkatul suuf wa barazu lillahi alwahid alqahar ñépp ne dungu ñépp ne dungu ci kanaw yàlla kenn kenn du réer kenn du nëbbut dara du làq lenn kenn du làq kenn ñépp naan dung su boobaa problème yi leen naqari yépp naa ko rek bu boobaa ñun yàlla ñu bokk ci ñu yàlla gërëm kon gen gis ne xikma bi bu am solo la moom itam ndax tey day tax jullit dal dal jullit dal dal mooy neexal àdduna dal day neexal àdduna boo gëmul yàlla sa fit te fit nit fitam koy dundal ku sa fit dem doo dundati ku sa fit dem sa lépp naqari soo lekkee du neex soo naanee du neex soo tëddee ci kër kër gi xam fit wu dal mooy neexal àdduna fit wu dal nag jullit rekk ko mën ndax situation bu nit nekk rek da koy comprendre bu ko comprendre fi dem dal sutura mi bëree ci sa kanam te nga nangu koo def ci yow nangu koo bokk ak say mbokk say mbokk tàmbalee ci bokk deret dem ci bokk réew nangu koo bokk ak say bokk sa fit sa xel dal sa fit dal ndax danga nga xam ne yaa ngi ci ndigal yàlla su yàlla soppee loolu indi leneen indi ak ñàkk indi ay feebar indi ay natt xam ne bëgg laa sowe rek a tax itam sa fit dal ndax da nga xam ne coono bi lu mu yàgg-yàgg fii la yem ci àdduna bi soo ko muñee nga daal di tedd nga muñ moo tax ak jullit dara du ko dérange feebar du yóbbu fitam ak ñàkk du yóbbu fitam ay mbañeel nit ñi bañ ko du ko dérange foo ko fekk day dal nit ñi ab jullit day dal parce que dal du dara lu comprendre dafa comprendre rek ku comprendre rek dal ku xam li xew rek wala dañ ne dañ ne ku ñeme dañ laa déy looloo la julli rek ay ñeme fu mu nekk ñeme fa ndax dañ koo déy liñ ko déy mooy fii nga nekk noo noo fi mel rek baax su su su bunt yu ubbeekoo jëlal jëlal te tëdd ci teral say mbokk teral say dëkkandoo su jafee buñ ko danaa ñëw parce que li ma la dencal yow fële nga jëm jugloo fi nga am jàmm kon julli rek mooy julli rek mooy am jàmm ci situation yépp ku dul jullit nag bu neexee mu dof bu ñàkkee dof xam nga dof paasewul nga dem ba grand théâtre la xaw fekk koo xam ne moo la ëpp xaalis fuuf nga fu ne nga dugg fu lu ne nga teg ba am benn cent mille franc wala benn deux cent mille franc fu ne lu ne nga teg lu ne nga teg ku leen fekk ci àll bi ba gis li ñuy teg nga ñëw fii ñu lay jey nga jël mille francs di def nii par dix mille francs koy xam nga kooku dof la kooku daa dof waaye ku gëmul yàlla itam bu ñàkkee dof bu ñàkkee dof bët bu set nga gis fu ko xaru xaru ki xaru jullit mënut a xaru mënut a xaru parce que xaru ki koy def mooy comme fii rek a am te fii néexatu naa fi jóge xaru pas-pas la pas-pas bu garaaw la moo tax ñu jar nit ñi la ba yàlla bu ci yàlla xiir kenn passeport bu ñaw la mooy da bëgg a yow yàlla ne ko comme fii doo nga am te man fii mënul neex ci man naa fi jóge ki gis bu def ko jàpp ne adduna dund amul feneen dekki amul ku gëm dekki ñi mu la xam parce que comme li nga jëm xamuloo lan la soo gëmee dekki doo doo fa doo fa gaaw yàgg doo fa yàkkamtee dem kon loolu toi ñi euh, gëmul yàlla ñoom ñooy faru donc jullit ñi jullit ñi ñoom ñoom am ñoo mën a am dund gu neex dund adduna bu neex ak alaaxira bu neex ndax adduna bi moom dana neex ci ñoom buñ fi amee buñ fi ñàkk alaaxira nag moom day fay neex ci ñoom parce que dañ fay am foofu alaaxira ñàkk am ko am rek fa am kon yàlla yàlla xiir ci gëm diine yant yàlla Muhammad ji yàlla bu ñu kenn jax-jaxale jaxe suñu xel bañu bañu am ci benn sikki sakk waaw l'islam dong wér leneen du dul l'islam munta wéru wéru am na benn mbokk sa mbokkum arabisa bu tubbi woon dem nekk catholique ba ma dajeeg moom di waxtaan dama ko ne sa tubbi gi du conviction du conviction parce que ni yont yàlla Muhammad jàngalee yàlla ku ko xeeb feneen foo dem doo doo doo la mun ngaa ko rek keneen mun laa ko rek kon soo xeebee jàngaleem yont yàlla Muhammad ni mu jàngalee yàlla feneen foo dem xaalis nga koy wuti dëgg la dem na fa ñu nommé ko ay kii defar ko kii nommé ko parce que alpulaar la ñu parce que ñoom ñu ñu nommé ko ci Afrique de l'Ouest xam lan parce que euh, léegi tub dellu soit ci diini ji nekk chia dañuy ci dëkk bi keneen ci tam dama ko dama am ki waxoo ki ki ne yont yàlla Muhammad dafa jàngoon ki bind téere fan yi te ne yont bi daal jàng li mu wax yëpp ci grec yi la ko jële ma ko layal ne yont bi jàng wax li li mu xam wax yu la moo gën a yomb layal na daa jàng ah, parce que loolu su respecte woon nit respecté science xam na ne layal ñàkk jàng yonti moo gën a jafe ndax yonti fi mu doon dund ci mag adduna bi yépp nangu ne waa mag daawuñ jàng kenn xamewu leen xam kenn xamewu mu juddoo fa jàng fa ba àgg ci niveau ba bind lu mel ni alxuraan loolu layal ko moo gën a jafe layal wax yi bi waaw wax ne wax yu la moo gën a yomb moo gën a donc nit ñi léeg-léeg dañu day naan ah, objectif wala scientifique mais scientifique loolu gëstu boobu ba subjectivité la objectivité lu jafe la objectivité la wax naa ko euh, benn mbokk ma ne ko doomu aadama buy gëstu dëgg ñaari taxawaay lay am su fekkee dafa am loo gëm bëgg loola nekk dëgg ngay gëstu ba ba ngay jeexal di nga am loo ko loo ko dëggalee bala ngaa jeexal rek am loo ko dëggalee waaye su fekkee dangay gëstu dëgg te yow amuloo intérêt ci mu am ak mu ñàkk am loolu mooy objectivité loolu mooy mooy mooy recherche bu objectivité mais bii dem subjectivité la tudd te loolu ñu bari ci gëstu yi ñoo dafa am lu ñu gëm di wër lu ko firndeel balaa ñoo toog rek am lu nuru loolu am lu nuru loolu ah, ah dégg nga foog ñu ko ah, foog ñu ko moo tax gëstu dafa jafe kon incha ñu yem foofu loolu mooy bind tey bi salaamaaleykum wa rahmatulah